balaa dem ci balaa dem ci euh, gën moor vu que noonu noonu ngeen euh, structuré bi dafa am lu ma lay laaj. Mhm. beaucoup de gens gis nañ sa relation ak euh, Dip dund Guiss. Mhm. tey bëggoon naa nga ñëwal ñu parce que xam nañ ne am ngeen ay relation yu nice. Mhm. mais naka la relation bi juddoo man loolu moom ma gën a intéressé. bon relation bi nu mu juddoo mooy dafa am benn somme famille. dafa dama jëloon prod bi après moi def bien benn freestyle quoi ma dugal ko sama compte Instagram gars yi di ko si tagué di ko si tagué après mu gis ko message ma. ñu mhm. waxtaan xam nga apprécier après faut le jouer quoi. D'accord, tu sens son si l'on non le jógee quoi. Mhm. Eh, entre temps gisante ngeen studio vous avez fait un son ensemble wala. bah loolu moom mënaguma si wax quoi. Hmm, ça veut dire que def nañ son ensemble. gars bu ñu def rek dañ laa Voilà pour wala voir ñu ngi waaj a def son ensemble. mënaguma si wax quoi. D'accord. accord euh, am solo ñu dem ci euh, Gun gën moor yow sa couplet euh, su ma juumul